benn jabar nañu bàyyi ci loolu xel mm-hmm. jigéen ñi ñu koy def mm-hmm. ñu manqué mm-hmm. nañu bàyyi loolu matadi mm, dañu matadi ku am sa jëkkër da nga fas yéen ñun jigéen tiitaru rek lañ bëgg tey jii bu ñu toogee ci télé bi ci ci ci ci bu ma toogee fii jàkkaarloo yoonu si sengaari njar meew tëmbal galaas xobilem yow it nga daa tagg sa jëkkër subaa fakal la macha allah waaye yow léegi nag waaw tëmbal galaas xobilem bu fekkee damaa tagg sama jëkkër. dëgg la jigéen ñi dañuy tiital suñu jëkkër yi. keroog da nga ko wax nga ne ku la gën jëkkër moo la. la gën. Mhm. effectivement nag taxawee dañoo war a mën a jàkkaarloo góor ñi. barke yeneen bi ki la gën jëkkër la gën. di leen wax ni nag tubaar fa kàlla macha allah jàppewuñu njaago ñuy fóot di fay. dëgg la waa léegi nag yow loolu boo ko mënta def fekk ñu takk la takk suuf. Mm. bu nit ñi wax da nga naan pat. da nga naan pat. kay noppiwaale. kenn du xam ne sax takk nañ la. dëgg la. moom ak ba pare damay ragal. mais am na ci yaay yu doy waar yoo xamante ne. Mhm. dañuy complot seeni doom xam ne lii takk suuf la ñu def ko mu suufe lool nag. Mhm. tatirama boo ma ko boo ko permettre foofu laa doon bëgg ñëw. parce que li nga xamante ne mooy moo am da ngay gis man dama ko gis personnellement yaay joo xamante ne dafa gis ku góor kii bëgg doomam mais dafa am alal macha allah. Mhm. dafa am alal ba liw muy defal àdduna ak lu si biir yaay ku jigéen ki. yaay ku jigéen ki nag xam na ne carrément que kële parewul sax. pour ne day takk jabar mhm. mais takku ko de mais daf ku góor daaw appartement dëkkal fa yaay ji dëkkal fa ku jigéen ki ñu nekk fa ñoom ñu jóge ci location moom muy fay lépp mais takk ko te pourtant da koy jabaroo dañuy njaaloo ñoom ñaar loolu njaaloo la yaay ji xam ne da koy njaaloo yaay ji xam na ko nekk complice ñu dem ba ci biir nag kooku du yaay ñu dem ba si biir situation commencé bari mhm. mu ëmb ba mu amee doom mu takk ko dakk boo xamante ne famille ku góor kenn yëgul yaay ji ne ko ba tey sëyal sëy bi yéen ñaar kese ak man mu jeex. kooku yaayi bandi nga yow yaayi bandi nga ma wax. xam nga kon ku jigéen kooku. yaayi bandi ma wax ndax yow bu fekk waa yaayi kooba. kooba baraaj ndax yow bu fekkoon am. dara doom moom da nga koy di tëdd ci basam nga tas loo merci mm-hmm. di sax waroo jël dara. Mm-hmm. di ci jëx euh, jiñax sa doom. doomam dëgg la. kooku moo jaay doomam. dëgg la ndax alal ndax alal alal. Mhm. appartement ba ak lam ko changer. Mhm. Mhm. loolu moo tax. waa ba mu ëmbee mbaa waxu ko dara. boo ëmbee du wax dara. ndax yow leer nga ne ma yow fii ma nekk lépp macha allah yow yaa tax gi nga jigéen sa dara jomb ko. góor mën naa ñëw bëgg sa doom defaral la loolu lépp mbaa mu tabaxal la kii la. mais nag du tee ngay waxtaan ak sa doom di ko ñaax góor ka am na loo xamante ni si doo leen bàyyi ñu wéet. doo leen bàyyi mu fay nekk ba yéen. mais bu fekkente ne ku góor kooku respons ku jigéen ki responsable na. yaay ju responsable. loolu laa lay wax. Mhm. doo leen bàyyi ñu wéer doo leen bàyyi mu defa fanaan. waa léegi bu ko ëmbalee. nga nangu yow mi yaay ji. nooy def lu du tey uuf sa doom. parce que da koo ëmb yaay wéyu nga. da koo ëmb ba pare mënatul mbokk yi ñoo ne ko na ko takk. na ko na ko takk kay. mais yaay ji xam na li xew mais après dafa dañoo obligé ñu takk ko takk suuf. Ah. muy sëy sëy ba. noppal ñu boole lépp ne pat. ak lu mu mën a doon ci àdduna mhm. dignité mooy lépp. Mhm. gis nga ajaratu Ndey Diouf mu sëriñ Fàllu mhm. maa ngi koy ziar sama mag ji di kontaan ci moom bu baax a baax. Mhm. nee na kaas yee wute mais ku xëy da ngay guux. amal milliard. lijjantiwuma la yàgg say milliard. sama dignité ma ko gënal. te nag yu mel noonu. mooy jàngal sa doom naka su dul noonu. ak jàngal sa doom fen ak jàngal sa doom lu ñaaw. parce que ñu ko sama yaay di waxee njublang njublang gàncu ak gàncutu ak gàncutu merci beaucoup xam nga lu tax mais danga naan kaan carrément defal fu la wala nga bàyyi sama doom est-ce que xam nga doguma la maman loolu cagatu si cagatu la bokk waaw non loolu waxuma la cagatu waaye yow mi yaay ji ak doom ji yéen a bokk yéen a yem même pied yi nga dégg ko mm-hmm. yaa ngi xam nga dafa am loo xam ne Euh, nit waru koo mën a defloo doomam. Mm-hmm. doom da koy wan ne ko man maay sa kilifa. Mm-hmm. lii ngay fii ngay teg sa tànk lii ngay def bu defee moo xam bu deful moom la mais yow defal li la war waxal li la war. Mm-hmm. jaamu ci yàlla defal li nga xamante ne loolu la yàlla wax doom boo ko yoree da nga naan kan defal lii tegal fii sa tànk bu nangoo affaire am la bu nanguwul moom la. est loolu nga. war a na ñoo xamante ne dañuy bëgg seeni doom ku góor ki defal lu ne. yaay ku jigéen ki defar lu ne ku jigéen ki te yàlla du dugal seen sëy. Mhm. loolu am na. dama ne la nit ngeen ngoroon na fekk nit may yaay ja oto. yóbbu ko màkk jëndal ko kër. di ko yóbbu Europe. Euh, bàyyi euh, vingt quatre heures sur vingt quatre mu aw ci yoonu avion yi. te takku ko. Mhm. wërsëg duñ euh, koy waxte wërsëg. Mhm. dee ak nuñ koy waxatee ba su juddu. ñoo yem. yàlla bu xësee ba ne dangay am ay milliards kenn mënul tere rama am ay milliards am. man mënuma ci dara. xanaa xamoon ne ragal yàpp yàlla la. Mhm. ragal yàlla la. te koo yaakaar yàlla la yaakaar. Eh, nit ki wër wërsëgam par force mu mu. ak lu mu mën a doon day jël wërsëgam. Mhm. ak lu mu mën a doon nañ la liggéey comme li ñuy wax. Mhm. liggéey ak ay naawtal ak ay def ne def naa loolu yëpp bu terewul nit ki bu yoree wërsëgam bu yàlla ne lii lay am. par force da koy am. kon lan la mais am na ci tamit ñu ñàkk kilifa ñoo xam ne. ñàkk respecté seeni ndey. Mhm. ak ñàkk respecté seeni baay. Mhm. ak ñàkk respecté seeni bopp. Mhm. moo tax lu ñuy def lu ñu yëgal seen ndey mbaa ñu yëgal seen baay. ba pare ba pare jooja euh, gis nga bépp goro buy def loolu. sa jëkkëri doom sax du la. du ko naw naw ko du la naw. du la faale nit da ngay diiñ du la konte du wóolu jabaram du wóolu ndeyam. <laughs> parce que day foog ne liñ ko def moom di nga dem defaat. bu nee wër dem fenn sax te foo ko tàggu day bañ. Mhm. fu mu dem sax ànd ah sama yaay laa war a àndal danaan ko sa yaay man nga war a àndal. Mhm. da lay teg fitna. ndax xam na ni sa yaay. du yaayi dara. saay saay la saay saay la. Mhm. du yaay ju mat. du yaay ju war a jur doom matt ju tooy ju war a jur doom mm-hmm. ndax bu waroon bu bu bu doon yaay ju war a jur doom du boole doomam ju jigéen ak doom ju góor man doom ju góor rek dama koy fiire mais ku eh, man doom gis nga góor këram rek lay topp bakkanam mm-hmm. Mm-hmm. Ah. waaw leneen ñaareel ba comme li kii wax rek dañuy signé monogamie ba pare wëlbatiku boole jigéen ñi nga signal leen monogamie ñu wëlbati ko bàyyeeku ne yàcc ni mburu mu gajaf bàyyeeku sëy benn at ñaari at ne sama jëkkër jox na ma lépp dootu takkati jabar ci ci ci këyit googu ci laa ko téye mhm. monogamie laa signé ñu ne fase nga bañ mhm. maak moom ñoo bokk alal mhm. nga bàyyeeku toppatootoo jëkkër faaleetoo jëkkër du njëkkee du goro jëkkër du njëkkee du goro. Mm-hmm. njëkkee goro dañoo baax ci sëy. Mm-hmm. dañuy defar dañuy yàq mais jëkkër mooy pee. Mm-hmm. jëkkër ji la takk. bàyyi ñëpp ñëw ba ci yow. takk la ci farata yàlla ak sunas Muhammad alayhi salaatu wasalaam mooy pee. waaye jëkkër jooju boo ko faaleetul konte too ko. te mu jox la ko wàccoo na ak yow. am na ci jëkkër yoo xamante ni si dañuy am na ci jëkkër yoo xamante ni si da ngay ne fii di galeeru mhm. ñoom ndaw si mhm. jëkkër ja di ñett ñetti ba tukki fexe ba jël la yóbbu la ci teg la ca seen wat teg la ci condition yu baax waaw ah. signé la monogamie bokk ak yow seen alal mhm. nga dem ba toog beew mu yóbbu sa njaboot macha allah nga nga jur fayit ak njaboot nga bew mhm. parce que man gis naa ci koo xamante ne si dafa jële fii soxnaam yóbbu ko Europe yóbbu ay doomam yóbbu doomu jiitleem macha allah te am na ay doomu jiitle bàyyi mhm. pourtant mënoon amoon na ay rakk yu mënoon a yóbbu mhm. amoon na ay mag ñu mënoon a yóbbu waaye mu jël jabaram yóbbu signal ko monogamie signé ak moom bokk ak moom alalam mu dem ba toog nag. Mhm. ni alfanaax te ku ne xam na ni Europe jigéen dafa am doole. Mhm. ak xale. faaleetoo jëkkër konte woo jëkkër toppatoo woo jëkkër respecté woo jëkkër bu jëkkër ne benn nga ni ko fukk muy dem ba bu tegee nii njëlam toggu jëkkëram teg nii togg mhm. ngeen bokk benn kër. benn appartement. yàlla nañ ci yàlla jëkkër jabar jëkkër ja mënatu caa génn mm. njaboot la ca. Mm-hmm. bu ca génnoon tey jii ñu xaaf xaalisam jox ko lépp. na ko ko jaral. jox ko lépp na jël. bëgg koo bàyyeeg ay doomam ndax bu ko bàyyeeg doomam jikko yi ci moom day na ci moom. Mm-hmm. am na jigéen ñu yor jikko yu sew. waaw bon jikko yi ne ci moom xale yi duñu am day na ci xale yu bon. kon xale yi bu boobaa. Mm-hmm. te muy dib jullit du xale yi dootuñu julli dootuñu woor. duñu sàkk murum koor duñu faale ndey duñu faale bàyyi duñu faale kenn ndax ku ne xam na la ci. ñoo yilif waaye mu jël lépp macha allah. dëndëx ni nii. waaw re xale yi respecté ko xale bu mu ci ne hey xale ba noppi waaye moom mi nga xam ni nag nee na toog naa ba pare maa ne fanaa toogee naa xilaafa gi. Mm-hmm. mënatuñu laa fase. te xam nga ne sa jëkkër mënatula am beneen jabar nga di ko bunduxataal di ko sonal day mujj sax day maar. non loolu day indi takk suuf yi. Mhm. jigéen ñi nañu bàyyi bu ñu leen takkee. Mhm. wóolu leen. Mhm. jox leen góor goo xamante ne si daf laa takk wóolu la jox la lépp. signé benn jabar kooku dafa goree ni dafa bëgg a yem ci yow. gore googu mu def xalaatal jour ba ngeen di toog. mu signé la benn jabar. nga kontaan ci loolu. nga kontaan ci loolu. mais continuer ci loolu. kooku dafa goree de bàyyi bàyyeeku beeg. ni sa jëkkër dama laa teye nii ndax sama certificat de mariage laa yore. Mhm. te te te benn jabar nga ma signal. kooku dafa goree di ba pare ñoo bokk suñu alal. kooku dafa goree di tey jii bu ñu tasoon sax bu doon ñaari kër la danga koy jox benn kii jël benn donte jigéen ja liggéeyu. da lay yàq ba nga lay yàq ba nga yàqu yexeet. loolu wor la. ak goree la parce que ki ñëw ne la yow la bu mu la gën a goree. Mhm. xam nga lan laay bañ. ka ñëw di la jaay maanaa di la wan la nii laa mel nii laa toll ak di la ñoññantal. Mm-hmm. kooku bu deewee sa amaana doo ko tënj. waaye ka nga xamante ne dafa jël alalam bokk kook yow di la wax biiram di la wax biteem kooku da ko koo war a sëyal ba dee. ba dee kooku dafa wor. parce que dafa romb jigéen ñëpp naka ah, ne la yow la jël alalam teg ko sa loxo ko ci sa loxo. Mm-hmm. confiance wallaahi mbaa xam nga leen am na ci jeeg yoo xamante ne tey jii seen i jëkkër mu suñoo am terrain. Mm-hmm. waaye ñu am fulla gu doy ni lu seen jëkkër yor ñu ne ko kaay. Mhm. ñu jox leen ñu teg ko ci yoon soxlawuñu juróomi dërëm mu doomu ñoom ñooy jël seen xaalis ci dolli sax ñu dooleel ko ba tabaxal ko kër dugal ko ci kër ga am na ci koo xamante ne xamatuma kan la nettali nañ ma benn histoire boo xam ne ndaw si day def bu ko jëkkëram joxee dépense mu wàññi. Mhm. bu ko jëkkëram joxe dépense mu wàññi. teg patu ba am benn temps boo xamante ne dana ko damaa bëgg nag ñu jënd terrain nee na mu tiit xool. bi ndaw si génnee xaalis bi pour ñu jënd terrain jëkkër ji dafa dar boppam. ñooñu ñooy jigéen ñu baax ni di defar mais am na ci jigéen ñu bon ñoo xam ne. parce que nag gis nga góor dafa am góor ñoo xam ne amuñu fulla. parce que nag euh, gis nga ku wàcc sa ànd ànd boo dem fekk fa borom dëgg la ndax nag mbokk mooy lépp. nit da ngay fonk sa mbokk. Mhm. da ngay jàppale say mbokk. mais daf ci am tamit gaa am na ñoo xam ne jàppale leen mbaa nga may leen ay milliards taxul ñu fay la bor bi parce que ay baadoola lañu fay naar ba xoromam donc maman Jojo Tati Rama laataa ñoo yeggali war na xam naa ne seen yaram tàng na Abdou